nga xam ni mooy euh, Médina ni mu gars yi sax ñu koy tuddee champ de patate parce que mu nekk loo xam ni gisuñu léegi ba gisuñu leen boobu ba léegi ngeen génn wax ah si de ñun génn nañ ci wax man personnellement def naa ci question écrite ci ministre des infrastructures def naa ci question écrite aussi au premier ministre euh, te question écrite boobu kii joxnako aussi ben ampliation au euh, maire Bamba Fall euh, d'ailleurs euh, nous suñu intervention yi ñu def ci ki yëpp amul benn intervention boo xam ne def nañ ko te tudduñu le problème de l'environnement à la Médina

dina créer ay accident dina créer leneen lu bëri loo xam ne après suñu kaw lay métti rek parce que ñun ñoo fi nekk di ko jéem ko jéem a defaraat donc appel bu ñuy lancé rek mooy nañ ñu defaral suñu Médina bi nañ ñu defaral suñu tali bi saison des pluies lañ nekk amul fooy jaar si Médina da ngay obligé wiiri gël tapé wala nga dem ba biir pour tourner amul sens te ñu dëkk biir Médina di li ñuy lijjanti biir Médina donc appel bi mooy nañu xool ñu koy liggéeyee rek nu mu gën a gaawee parce que sinon day gën a métti si ñun rek il faut que donc loolu c'est un link qu'on doit faire avec les autorités pour que loolu mën a saafarawu mais ñu ngi ciy wax ñu ngi ciy dox waaw comme yéen yeneen ndawal réew mi dañuy daa gis euh, d'habitude bu problème musaan am ci gox euh, député yi ñoom ñoo koy exposé ko fi nga xam ne assemblée nationale est-ce que tamit euh, pare ngeen pour jàppale ci Médina ci loolu mais ñu ngi ciy wax ñu ngi ciy def jàppale bi benn bi mooy ñu wax ko ba ñëpp xam ne lii am na ci biir Médina ñu bind ñi nga xam ñoom ñoo intéressé les ministères sectoriels ñu bind leen ba paré nak di dox pour lolu saafarawu wax naa ko nee naa leen tant que mu ngi am le système de euh, de de sous-traitance té amul ben évaluation ci travaux yi nga xamné état mo koy def toujours ni lay mujjé donc système de euh, sous-traitance bobu nañu ko jéem xol nan la ñuy nan lañ koy saafaraa surtout au niveau de la Médina parce que soute euh, euh, euh, système de sous-traitance rek moom indi donc ñun ñu ngi ciy dox ñu ngi dem fi ñu ne même le ministre des finances mës naa ko ci interpellé wax ko ne ko lii nañu ñu dimbali parce que Médina en souffre la Médina en souffre vraiment il faut que ñu trouve ko solution te fiñ toll nii Sénégal ñëpp a tiit ndaxte ñàkk yar gi muy manque de civisme bi dafa bëri lu neex waay wax nit lu neex waayu orma wax ko le président yatasaay nak ne ci lolu olof Ndjay nak ne na ki am keur denk la ci neek bu moomee rew dana la ci dagal keur Yata bi biko Yalla mayé car machallah je tous du bois dafa installé ay entreprise embaucher ay domi Sénégal dagal len salaire kon tey suñu togué ñun ñoo def demande sociale bobu pour demander ko mu nekk candidat ci élection yi di muy 2024